ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم عن سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر رضي الله عنهما يقول jëleen nañ ci suñ sang doomi suñ sang abdullahi doomi omar yal na yàlla boole leen gërëm mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yonent alayhi salaatu wassalaam wax na ne man sarrahu an yanzura ila yawmi alqiyaamati ka annahu ra'yu aynin falyaqra ida shamsu kuwirat wa ida samaau fatarat wa ida samaau shaqat nee na ku bëgg a xool yowm alqiyaamati xoolab janoo mel ni yaa ngi koy gis ci jano dara du la ci umpu ne ku bëgg lool na jàng ida shamsu kuwirat mooy suratu takwir numéro quatre-vingt et un fatarat moo ca topp surat quatre-vingt-deux suratul infitar wa ida samaau mooy saar wi topp ca wacca topp mooy ni surat inchiqaq numéro quatre-vingt-quatre rawahu tirmidi yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne bëgg nga gis ni yowmal qiyaamati di mel na muy déroulé dara du la ci ump ne jàngal ñetti saar yi ñetti saar yi bokk na ci li karaw yonentu sallallahu alayhi wa xam nga yonentu ba bim fiy jógee li weex ci karawam rombut ñaar fukki karaw ndeysaan bés Seydina Abubakar di ko tooñ ko yonentu be jaaw nga mu ne ko suratu Huud ak i mbokkam ñooma be jaawloo suratu Hud yàlla daf ko ubbee di ci wax yonent yi ñoom sayduna Noox ñoom sayduna Hud ñoom Saalix ñoom sayduna Luut ñoom sayduna Ibrahim ñoom sayduna Shuayb ñoom sayduna Muusa ak ni seen xeet dëddoo woon ak di leen tooñ ak na leen yàlla xalagee noppee yàlla ne yonantu sallallahu alayhi jubal nag ni ma la ko digalee xoolal yonantu bi nga xam ne moo gën a jub ci li yàlla bind yàlla nan ko fastaqim kama umirt gannaaw ga mu ko ci mu tegal ko ci ni yowmal qiyaamati di deme ak na muy def jaam ni yonantu nee na looloo ko béjjaawloo ak mbokki saar wi seeru suuratu Huud nag mooy sawar yi saar yi ñu tudd ida samaau ida ida shamsu kuwirat ida samaau fatarat ak ida samaau shaqat ku ko seetantal boobu jaawulit de dana dana bëri lu sa xel dem dana bëri looy bàyyi xel yal nañu yàlla dimbali fuñ toll di bàyyi xel yi ñu ngi ñuy tàggee rek suñu yaay joo xam ne dëgg-dëgg yaay la woon ci ñun yaayu yoo yaayu dëgg-dëgg la woon képp koo xam ne rek dañu ko dañ ko tuddee soxna si muy suñu wéyjur mbaa mu bokk ak moom tuur dañ koy def yaay waaye kii nag moom daf ñoo gis rek moo ñu defal boppam doom daan na jógee Vancouver ba Staten Island nga xam ne daanaka diggante Sénégal ak Amérique la jël ko avion ngir di fekkee si programme yi ñuy am fii moom ak i mbokkam suñu yaay yu baax bëgg diine eh, nga xam ne eh, ñun daal gaa mun nañoo wax ci moom ñu ngi leen di ñaan daal ngeen ñaanal ko ndax suñu xol fees na ci moom lool moo fi jógee bik ñaanal ko mu ngi tudd Mariam Ba ko gënoon ko xam ci la soxna su yiw su sell su bëgg diini su yar njabootam noonu mu fonkee ñu noonu lañu njabootam fonkee di ngeen dégg xale boobu di def bande danoo su Tidjani rajo ci anglais doomam la yal yàlla yërëm ko may ko aljanna koy jaale Seydou borom këram ko jaale Zahra Mbengue ak ñoom yaa roxi ak ay doomam ñoom yaa maram xale yi yëpp ñoo leen di jale di leen ñaan ngir yàlla ngeen ñaanal ko na ko yàlla yërëm may ko aljanna ki yonantu sallallahu alayhi wa yàlla xool daram ci njumte